importance comme ni ma ko waxee dinañu jàppale bu baax ci benn bi parce que Ndiama boo dee population bi ñu c'est environ 6900 habitants donc euh, prise en charge bi dinañu permettre au moins euh, ñu améliorer ko surtout par rapport au retard parce que des nit dina am problème nekk ci zone avancée zone mobile mobiles, xam ne du mën a ñëw hôpital donc ambulance dinañu mën permettre ñu mën accéder foofu même par rapport ak euh, yeneen services yi comme vaccination ak de nous permettre ñun ñu mën a def lu ñu intégrés, paquet intégré mën vacciner mën a consulter mën a aussi jigéen ñi nga xam dañu wérul te mënuñu ñëw ci hôpital bi donc ambulance nous permettre au moins ñun ñu dem foofu fekk leen sur place ñu jël leen en charge donc benn ci loolu benen bi moy par rapport ak les urgences prise en charge des urgences parce que des fois nit dina toll ci diggante ñu war ko yobbu à l'échelon supérieur au niveau centre donc déjà ambulance bu fi nekkee dinañu permettre au moins prise en charge bi comme ni ñu waxee la référence est une prise en charge dinañu mën a permettre ñu mën ko référer yóbbu ko niveau structure pour que la prise en charge soit précoce i comme ni ma ko waxee pense que jël ngeen ay image ak ay photo par rapport hôpital bi gis ngeen bâtiment bi ni mu mel c'est un bâtiment boo xam ne dafa yàgg benn et bâtiment bi par rapport boo gisee kër nga koy teg parce que dafa yaatuwul dafa tuuti donc amuñu espace donc li ñu comme ni ma ko waxee li ñu bëgg rek mooy surtout bu ñu amee ku ñu ko tabaxal si ce n'est pas l'état les bonnes volontés sont là Nous, avons au moins poste de santé pour répondre aux normes pour am espace avons toutes les pièces requises pour prise en charge de la population